ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci seen ànd ak li nga xam ni moo nekk Aladji Malick TV seen seen préféré ah, nekk match boo tey xam ni soog eh, bi nga xam ni moo doon am fële ca Angleterre fële ca stade du Manchester ah, City nekkoon na soog boo xam ni bu métti woon la bu amoon solo ci histoire nag waaye bariwul lu muy am ah, ci jamono ji nga xam ni moom la ñu nekk benn équipe bu jàpp ab équipe wulli ko juróom benn bal loolee tey ji Manchester City def na ko tey ji mu nekk loo xam moo yër li nga xam ne mooy kër gi benn footballé lu mat juróom-ñetti minutes séngam loolee nekk loo xam ne lu doy waar la waaye Erling Haaland moo ñëw tollantiwaat fanweeri minute ak ñeent moom Haaland mi nga xam ne daanaka fi mu toll yi moo mujj jaxasa carte ga tegaatuñ ca dara fanweeri minute ak juróom-ñaar ñetti minute ginnaaw bi Haaland daal di ñëwaat rajaxarawa tawaat ki boyaat mu nekk ñetti bal yoo xam ni waa goney Manchester City dugal nañ ko équipe bi nga xam ne mooy United beneen bi tamit mooy Foden moo dikkaat ci toroxal bi dolliwaat ñeent fukki minute ak ñeent ginnaaw bala noo mi-temps benn minute avant ñu mi-temps mu tollanti bi ñu demee ci mi-temps bi noppaluwaat naanaat ndox ku ne cité yi mel ni fas yure ci ñëwaat Irlande euh, ci boppam dolliwaat li nga xam ni euh, ci juróom-benn fukki minute ak juróom-ñett fukki minute ak ñett nga xam ne foofu la foo doon ñëwaatee euh, dolliwaat bu baax a baax mu nekk juróom benn bal Manchester United seeni bi ña ca ràññee ko Anthony Martial bokk na ci wala bokk Anthony Euh, dugal na ak euh, Martial euh, nga xam ni ñaari yoon la yër kër gi yëraat ko loolee nekk loo xam ni mëntatee ñu daal di leen di dóor wulli yoo xam ne yu am solo la kon Manchester United doonagul équipe boo xam ne ñu ngi koy bàyyi xel ca Angleterre fi mu toll nii fa mu nërmeewul woon fa la copp ba léegi Manchester City moo topp léegi ci Arsenal ci classement li nga xam ni mooy Ligue Premier League